xam mooy li ñu lay wax gis nga euh, loolu da fokk nga bay may ma rek. waaw mais émission bi nag temps une baa ngi dem waaw dama lay wax. waaw <laughs> gis nga boo gisee Ali Sale bi muy génn maak président Arona Gallo Ba président UNOS ñoo yëg ko dañoo déplacé dem seeti Idriss Seck ñu nekk dañoo ñëw seeti la ci ñaari fànn premièrement fii nga toll pour nga génn. ci benno bi ngeen nekk di politique est-ce que mënoo fa toog. bi ci kanam waaw mais may ma rek man ma ñun la woon. Ah, waaw mais danga nga may déglu nag suñ bi dégg nga ki euh, Aïcha. Ah. ba ñu ko ba ñu ko waxee loolu dafa ni eh. waxtaanee nañu ko ba pare ba ñun ñu war ba ma war a dem ñu nekk est-ce que ministre élevage. munoo ko bàyyi ko mu toog continuer parce que politique bi président de la république moo koy définir wax ko ba pare di finance Aly Saleh li muy def Macky Sall moo ko ko wax parce que moo ko moo ko teg na def la mhm. xam nga li ma la wax mu ne nag léegi ñu nekk kooku mu toog parce que fii ñu nekk tey deux mois de tabaski la ñu ne te aussi mardi ñu ñu ngi ko ko wax euh, jour julli ñu nekk après demain la ñuy lancer Euh, recensement cheptel bi mhm. mu ne loolu mu ngi aju ci Ali Saleh gis nga loolu ba mu ba mu ñu waxee loolu ñun xam nañu réponse bi parce que ñun ñëwuñu pour politique wala leneen dañoo jóg dem xam nga li ma la wax parce que li ñu doon wax mooy couvrir suñu secteur léegi nag ah, waaw ko remplacé mun na nga si yaakaar wala waaw mais Ali Sall am na lu ma fa tabax bàyyee fa te borom ah, politique bi nga xam ne moo ko définir di Macky Sall moo nga fa <laughs> demul fenn